nuyu mbokk yu nee na mi ngi nuyu mbokk yu tedd yi fi teew. ak mboolem taalibe yi sëñ Tuubaa eh, moom de daanaka nag jë jarul sëñ Murtala wax na lépp. na daanaka darul jarul woon dolli dara sax ndax sëñ Murtala wax na lépp. li ñu waroon lépp li ñu waroon wax lépp wax na ko. li waroon wax lépp wax na ko. kon nag cant rek moo fi nekk. fa tabarakallahu nee na kon rek cant rek moo fi nekk. dafa mel ne nun sant dong dong dong dong moo war liggéey. sant dong dong dong moo war a doon sunub liggéey. lii bi ma koy xalaat itam. nee na lii bi mu koy xalaat itam. maa ñoo xam am nañu yàqin ci ne sëriñ bi boolewul dara boolewul dara ak boromam. nee na am na yaqin ci ne sëriñ bi boolewul woon dara ak boromam. léppam léppam léppam léppam mi ngi woon diggante boromam ak yonent bi. léppam mi ngi nekkoon diggante boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu nag waxuma sax nuyu seen président waaye dégg ko rek daanaka euh, doy na xéewal ci noonu. nee na waxul sax seen pëndam waaye dégg ko rek doy na xéewal ci noonu. kon nag loolu la jëy suñu wartif mooy sant ko rek. nee na loolu la cay sunu warteef mooy sant ko rek. sant gi bi ma koy lii eh, koy xalaat dama xalaatoon ajjuma ju ñëwati rek ñu def ko ni ajjuma ji tey. nee na bi mu koy xalaat dafa xalaatoon ajjuma ju ñëwati rek ñu def ko ni ajjuma ji tey. waaye nag dama seet seet doy doomu aadama ak yitte yu bari yeeg artificiel bi yooyu yëpp ma xam ne loolu itam nag kon mat na sedd nee na waaye dafa xool doye doomu aadama ak yitte yi ak gàllankoor yëpp mu xam ne kon yooyu yëpp mët naa sédd. bi ma xalaatee ne aju ajuma bi ñëw dañ ko war a def boo ma wàññi ko defoon ko ñetti weer ñetti ñe ko ñeenti ajuma ci weer bi. nee na bi mu ko xalaatee euh, euh, daal di ne nañ ko def kon ñeenti ñeenti ajuma ci weer bi. loolu itam ma xam ne ba tey rek euh, faw rek. suñu doyadi ak suñu jotadi eh, dañu gàllankoor ba xëy na loolu itam dafa dana daal di bëgg a doon fitna mu mu wàññiwaat ko. mu daane mu xam ne ba tey sunu doyadi ba tey ak jotadi gi dina tax ba tey dina doon suñu fitna mu daane mu wàññiwaat ko. ma ma def ko nag ma ma xalaat ko nag nu def ko ci jamono yii nu toll ñaari ajjuma yi ajjuma ju tey jii ak bu delsee ñu dolli ko ni ñu ko defee woon rek ñu defaat ko ni mu jàpp nag ne kon nañ ko wàññi nag def ajuma ji ñu ne ak bu dellusee ñu defewaat ko nii ñu ko defee rek tey ji ah, ci li nu jëm itam lépp itam lépp rek li nu jëm lépp lépp lépp ñëbal sëñ Tuubaa gi ñëpp eh, bàyyi ko xel eh, def eh, def ko ay ajumay Tuubaa ji ñu waa waxtu ñu ko mënee rek ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu yeesal ko peq nee na nag li nekk suñu kanam nag njabootu sëñ Tuubaa yi ñu xam ne rek li nekk suñu kanam lépp lépp lépp waxtu woo xamante ne mënati naa am rek nañ ko delloo si waat xam ne ajumay Tuubaa ji dafa war a wéy rek ñu ànd ko jàpp ko di ko sàmm. loolu yeesal ko tax. loolu loolu li ko waral mooy mooy ni ma ko jëkkee woon a waxee rek sëriñ bi boolewul ak dara ak boromam dundam gépp gépp gépp gépp jox na ko boromam lu boobam ak yonent bi mu jox ndigalam nee na mooy ni mu ko waxee woon rek sëriñ bi musta boole dara ak boromam nee na ak yonent bi saa san bi nga xam ne moo ko ci joxoon ndigal boromam ak ñàkk ñàkk ñàkk solo nag war nañ koo war nañu nañu war nañu jóg am eh, post fas yéene sax dàkk sant ko sant ko si wàll yëpp digg ma boromam digg ma yonent bi digg ma boppam suñ digganteeg moom lépp ay cant la yoo xam ne dañ caa war a sax dakk di ko def nee na kon nag luñ doyadi doyadi nag war nañoo xam ne nag war nañoo sax ci sant ko ci lépp nag anam yëpp digganteem ak boroomam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñ digganteeg moom ak su lépp rek lépp rek war nañu ak digganteem ak boppam lépp rek war nañ koo sax di ko sant saa su ne kon kon loolu moo waral nag kon Eh, ginnaaw moom boolewul ak dara ak boppam te dundam gépp jox na ko boroom ba mu jeex takk de dara dara dara des desewu ca dara loolu la kon ñun ñu am tawféex juré jëm suñu boroom booleek moom nu nekkal ko fi kon war nañu góorgóorlu bu baax ci fas yéene sax ci sant ko cant gi nag mooy nii nu koy nii nu ko defee nam ko gën a le rek nam ko gën a le rek ku ne xam ne zikrullahi ku ne xam ne luy dara jaam ci lislaam alquran ku ne xam ne luy dara jaam ci lislaam xasaayid di sëriñ bii nag moom mooy sunu mooy sunu xaas nee na kon nag lu nu doyadi doyadi rek nañ xam ne wala noo sax ci di ko sant moom sëriñ bi euh, te cant gi nag nee na ñu di ko defee ñu di ko defee ni mu ko gënalee ci diggante alquran ji ak zikrullahi ji waaye xasaayit yii nag nee na mooy suñu xaas nañ xam ne mooy bu ñu ko jubloo sante ni mu ko gënalee xaside yi nañ xam ne mooy suñu lépp mooy sunu xéewali tey mooy sunu xéewalu ëllëg mooy sunu ndamal tey mooy sunu ndamal ëllëg. góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax. nu góorgóorlu bu baax kon nu góorgóorlu bu baax. fonk gën a gën a gën a gën a fonk xasida yi. gën a fonk xasida yi. mooy suñu lépp. ndax mooy sunu lépp. mooy sunu tata. mooy sunu tata. mooy sunu xéewal. mooy sunu xéewal. mooy sunu ndimbal. mooy suñu ndimbal. mooy sunu lépp. mooy sunu lépp. tey ak tey ak ëllëg nag. defaru tey ak ëllëg rek. defaru tey ak rek. fonk xaside yi moom. fonk xaside yi moom. defaru tey ak ëllëg la indil. defaru tey ak ëllëg la indil. ndax sëriñ bi lu mat a ña lu mat a fàggu digg digg ba boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu digg ba boromam. fàggu na ko te jubóo na ceeg boromam. lu mat a ñaan. lu mat a ñaan. na ko. ñaan na ko. te boromam may na ko. te boromam may na ko. kon nag ñun sant dong nu kon ñun nag sant dong moo nu war. góorgóorlu bu baax rek. nan góorgóorlu bu baax rek. fonk nekkal ko ci li mu bëgg. nekkal ko ci li mu bëgg. fonk xaside yi. fonk xaside yi. sàmmal ko alxuraan. sàmmal ko alxuraan. sàmmal ko lislaam. sàmmal ko lislaam. ak ak lu bokk ci lislaam. ak lu bokk ci lislaam. jaay jox suñu dund nan ko jox suñu dund gépp. nan ko jox suñu dund gépp. liggéeyale ko ko. liggéeyale ko ko. jox ko ko. jox ko ko. loolu rek mooy suñu warteef. loolu rek mooy suñu warteef. amuñu beneen warteef. kon nag jërë ngeen jëf. ne ko nii ko sëñ Mourtala waxee rek nee na matal na lépp alhamdulilahi rabbil la lii xéewal gu rëy la njabootu sëñ Tuubaa gii toog mbokki taalibe yi toog ñu nekkal ko ci li mu bëggoon ba waxtu wii alhamdulilahi rabbil alamin xamul nu nuy sant nu nuy sante loolu xamul nu waaye nañ sax ci lii nag waaye nañ sax ci lii nag bàyyi ko xel bu baax bàyyi ko xel bu baax mënuñu ko sante lenn sëñ bi mënuñu koo sante lenn nekkal ko ci bëgg lu nu nekkal ko ci li mu bëgg rek nekkal ko ci li mu bëgg rek nekkal ci li mu bëgg rek nekkal ko ci boromam rek mooy nekkal ko ci boromam rek kem kattan suñ kem kattan suñ kem kattan rek fonk fonk fonk fonkal ko fonkal ko lislaam ji fonkal ko lislaam ji bàyyiwul dara waral na lépp bàyyiwul dara wane na lépp. kon nag nan góorgóorlu rek. kon nag nan góorgóorlu rek. sax sax ci dàkk. sax ci dàkk. mooy suñu defaru tey. mooy suñu defaru tey. di suñu defaru ëllëg. di suñu defaru ëllëg. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. waaw nee na nee na li ci xol bi mu ne su ko wax waaye nañ xam ne xolam sedd na ci nun guy xel xelam dal na tiix ci ñëpp. amul solo waaye wóor na ma ne yéen seen sëñ Tuubaa dëggu na ci yéen. waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke nee na sëñ Tuubaa na ci ñun. dëggu ci yow nag. te ku sëñ Tuubaa dëggu ci yow. texe àdduna ak àllaaxira rek ngay am. jërëjëf Mbacke na ñëpp tàllal seen loxo na ñëpp tàllal. ne sëñ bi. waaw ne ko. sëñ sëñ Moutala nee na Mbacke. ndigal ndigal ndigal la ñuy déglu. nee na sa ndigal rek la ñuy déglu. mën nañu ajuma ñu nekk. mën nañu ajuma ju ne. ñu defee ko nii du ñu wàññi dara jërëjëf mbake jërëjëf na ñëpp tàllal seen bopp waaw incha allah waaw Mbakke. dañu dolli ko rek uh-huh. a loxoy neen. li ci dolliku mooy nit mënta toog loxoy neen. bu nekkul ci lii. bu nekkul ci lii. nekk ci leneen lu ñu amalul njëriñ. nekk ci leneen lu ñu amalul njariñ wala wala ñu bañ a nekk sax ci dara. wala ñun bañ a nekk sax ci dara. kon nag nañu góorgóorlu bu kon nag nañu góorgóorlu bu baax. daal di fas yéeneen sax dàkk ci nekkal sëriñ bi rek. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf.